biram Khoudia ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di ngay secrétaire général adjoint parti PASTEF di parti ba ñu tasoon waaye itam nga bokk ci euh, bureau politique bi. Mm-hmm. voilà ñu dooree waxtaan wi ak euh, sorti président Macky Sall ba mu jàkkaaloo ak taskatu xabaar yi euh, wax na ni mandaawam dina jeex ñaari fan ci weeru avril bii di ñëw loo lan moo ci seen xalaat. waaw dina jeex avril bii di ñëw loolu moom constitution bi bind la loolu mu wax ko ak mu bañ ko wax xam na ni mandat bi dina jeex mais dafa entretenir li may woowe clair obscur mooy leerul du jën du yàpp du lu kenn xam xamuñu ndax day démissionné am na ko laaj répondul xamuñu ndax moom dafay dox faire du président assemblée nationale xamuñu ndax dafay prolonger mandat am toogaat loolu yëpp leeralu ko mënoon na wax ni la 2 avril man damay bàyyi complètement même bu ngeen amee président bu bëri. Mhm. waxul loolu. Mhm. donc clair obscur la def foofu. Mhm. maanaam dara leerul ci euh, boppu Sénégal leerul ci boppu Sénégalais yi. d'accord li ñu doon leer mooy mu jël dara. d' accord euh, donc tey euh, bu ñaari fan ci weeru avril euh, jotee ci bés bi nga xam ne président bu bees bi waroon na prêter serment euh, bu ñu organiser wul élection yi euh, Sénégal du am président. loolu daf ñuy dugal ci benn vide juridique te situation boobu mën na une situation de crise tey dara terewuñu ñu def élection le 10 mars bu ñu defee élection le 10 mars dinañu mën a prolonger passé le tuuti. waaye une semaine lañ koy passé wala deux loolu c'est pardonnable à mon niveau waaye li ma bëgg wax mooy il faut que mu jël date élection démb Sénégal yëpp loolu lañ doon xaar mm-hmm. waaye jëlu ko ma ngay wax yeneen mm-hmm. d' accord euh, président Macky Sall woote na itam dialogue euh, lundi bii di ñëw euh, nee na bu boobu dialogue euh, jàllee ci lay jël ab décret bi nga xam ne mooy convoqué corps électoral ngir ñu mun a dem ci élection présidentielle tey ñu bëri ta commencé nañ di joxe seen position ci boobu le dialogue yéen ndax di ngeen dem wuy ji si dialogue boobu. xam nga temps dafa dialogue dialogue dafa am ak temps processus électoral processus électoral moo doon dox moom moo ko dagg léegi bi mu ko daggee euh, raison bi tax mu dagg conseil constitutionnel nee na ko loolu baaxul assemblée nationale conseil constitutionnel nee na loolu baaxul léegi moom pour mu delloo si mbir yi dafa war a jàpp date mhm. dialogue boobu mu wax concertation la deux jours la te yaakaar ne ni mënoon na ko def bu yàgg mais defu ko dafa toog ba tey mu jël di def dilatoire ñun loolu lañ ko gisee dégg naa le groupe des seize ni ils ont rejeté le dialogue mm-hmm. lu tax parce que ni mu ko jëlee la moom nee na dialogue bi day woo société civile day woo secteur privé day woo yeneen parti politique yi mais loolu mooy dama bëgg indi coow ndax ñooñu ñëpp bu ñu ñëwee ñoom dañu am seen ay parti yu ànd ak ñoom dañu am secteur privé bu ànd ak ñoom dañu am ay euh, seen euh, nit fépp ñooñu bu ñu leen wooyee dañu indi polémique te bu indee polémique indi problème loolu aussi mooy problème bi. ndax yéen da am ay conditions ngir ngeen dem wuyu ci boobu dialogue. condition bi defe naa remplir nañ ko ba pare mooy ñu wax que bii date la ñu soxla parce que moom liñ ko soxla mooy ñu jël date soxla wu ñu muy indi yeneen thème yeneen thème yi bu président bu bees bi toogee dinañ ko mën a waaye moom amul jotu dialogue y a le temps du dialogue et le temps des élections on est au temps des élections et s'il applique la date du 10 rien ne lui échappera il pourra nous présenter à un président et faire euh, la passation de service normalement mmh. d'accord président moom jàpp na ni euh, dialogue donc moo tax euh, Sénégal mën a génn ci situation yi nga xam ne moom la ñuy dund jamono ji non situation bi moom moo koy dund ci xelam ñun amuñu benn crise amuñu benn problème li fi am yàgg na fi am Bougane Gueye Dany en deux mille dix neuf ba ñu ko jëlul dafa contesté contestation yàgg na fi am waaye moo indi ci situation bu ñuy randal élection lu ñu dafay niru ni moom dafa bëgg prolonger mandat am même bu dee wax la contraire kon bu bëggee jàmm na fixé datu élection yi amuñu benn crise bu fi nekk tey na lexee ba lii bañ a yàqoo ci loxoom ndax président Euh, Abdoulaye Wade yàqowul ci loxoom président Abdou Diouf yàqowul ci loxoom donc président Macky Sall warul yàqoo ci loxoom. Mhm. donc bu bëggee yàqoo ci loxoom moom moo ko bëgg. Mhm. léegi na jël disposition am mhm. d'accord àdduna itam euh, lu jëm ci liberté provisoire Ousmane Sonko wala Bassirou Diomaye fay euh, wax na ni moom amul benn problème bi nga xam ne. Euh, amul benn problème nee na lépp rek day dépendre ci li nga xam ne mooy euh, avocat Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ñoom ñooy def euh, seen kéem kattan ngir xool ban procédure juridique la ñuy jël ngir génne leen ci prison yi wax na itam moom du ci intervenir procureur moo mën a joxe avis non dafa wax une chose et son contraire parce que moom waxoon na ni dina wax ministre de la justice bu defee ba apaisement am ci réew mi ñëpp xam na ni apaisement li koy indi mooy ñu libéré Diomaye Faye ak Bassirou bi ci de la justice du joué mais mo abrocé ah, avec des avocats bu bëggee mu génn tey mu génn tey yaakaaruma waxuma la dialogue dialogue moom mënul nekk mais apaisement de la situation sociale lu koy ciy génne moom mooy mu génne Ousmane Sonko ba pare en privé mu waxtaan ak Ousmane Sonko en privé laa wax mhm. parce que nit boo ko tooñee mën nga ñëw waxtaan ak moom par rapport a la situation parce que xam nañu ni Diomaye Faye mën na jël réew mi wala Ousmane Sonko kon ñu war a jël réew mi ëllëg yow miy dem nga xam ni am nañu nga xam ni sa ay collaborateur commettre nañ ko ci ay bêtises mën nga toog waxtaan ak kooku mais am mhm. d' accord ci ay kàddoom moom nee na bañul euh, li ñu libéré Ousmane Sonko. bëggu ko tamit parce que situation bii bu sifflé woon la fin de la récréation kon Ousmane Sonko du egg mhm. mais dañ ko dugal ci ay diil dugal ci ay biir mu leen di déglu bu ñu comme xam na nit ñii dañ ko doon dugal léegi na rocceeku mhm. loolu mooy problème bi dafa cekk mooy mu libéré leen. Mhm. parce que loolu moo tax Sénégal yi di am jàmm. d' accord donc ci ay kàddu yooyu mën nañ xaar benn amnistie pour Ousmane Sonko. amnistie pour Sénégal pour ay fee la. or Ousmane Sonko moom li ko euh, Macky Sall def mën na ko ko baal waaye ñoom ak force de lool yi ak ñeneen yi ak torture yi loolu yëpp ñu def ak nit ñu ñu rey est ce que Ousmane Sonko mën na ñëw signer une amnistie wala mu d' accord ci amnistie bu ko defee day substituer wu yi. moom di moom nee na day woote dialogue pour toutes les forces de la nation bu ñooñu d'accord amnistie bu hmm. bu yóbboo waaye amnistie mën nañ ko def mën nañ ko defeer nga hmm. xam loolu d'accord euh, tey ñu ci mel ni Pierre Goudiaby Atepa ak ku ci mel nii euh, Alioune Tine ñi ngi entreprendre ay médiation ngir rek apaiser li nga xam ne mooy climat sociopolitique bi donc yéen malgré médiation yooyu loolu ngeen doo leen wuy ji médiation yooyu ñu koy def bonne volonté la ñu Atépa mu njëkk wax mooy libéral Ousmane Sonko collectivité Casamance dama ko wax ba mu ko waxee dañ ne ko nga kon tey bu ñu ñëwee ba fii ñun mosuñu bañ benn dialogue ak nit waaye dafa am temps wu ak temps élection chaque chose en son temps président bu bees bi bu ñëwee pour régler toute la situation indemniser euh, blessé yi xool nu mu demee yëpp loolu dinañ dem dialogue ak moom. Mhm. ndegam du doon ñun parce que yaakaar naa ni kat ñun ñoo gën a placé pour nekk président de. Mhm. d'accord ñu bëri itam jàpp nañ ni tey képp ki nga xam ne nangu nga dem euh, dialoguer wala amal ay waxtaan népp népp nu ñu ko mën a euh, tuddee rek complice nga ci coup d'état constitutionnel bi. loolu laa la wax. Mhm. nekkuñu temps wu dialogue temps wu élection lañ nekk. indi situation bi mooy ki déplacé élection yi loolu moo indi trois yi ndax révolte mhm. léegi nag pour régler cette situation conseil constitutionnel jox na ko porte de sortie na jàpp date loolu mooy jàmmam di jàmmu sénégal yi. Mhm. d' accord laaj bu mujj bi monsieur Lo euh, FC 25 euh, di ab kuréel bi ëmb euh, lu toll ci fukk ak juróom-benn candidat opposition bi waroon bokk ci élection yi lank nañ nee nañ du dem mujj ci boobule dialogue ak concertation président Macky ngir mu déterminer bés bu mu war a amal président bi présidentielle bi lu ciy sa xalaat. xam nga lu tax ñooñu ñu rejeté ko. Mhm. mooy ñoom def nañu proposition date ba pare ñoom lu ñu def proposition date ba pare keneen jóge fële naan dañuy woo ay société bii la yëpp indi ko xuloo ak xeex ñoom loolu duñ ko def ñoom affaire bi ñoom la concerné mhm. bind nañu président wax nañ lañ ko wax looloo tax du ñu dem di toogaat ak moom. Mhm. parce que dialogue ba concertation la concertation yi mooy ban date ngeen dëkk proposé nañ ko date jeex na. merci beaucoup Birame Khoudialo. merci. Euh, di fàttali yaay euh, secrétaire général adjoint parti euh, PASTEF bokk itam ci bureau politique bi itam ci bureau politique